donc bi bijou comme ni nga ko waxee ay exemple <laughs> ay exemple de réussite lañ leen indil tey puisque jot nañ fi ñëw ci plateau bi waxtaanee fi wàllum immigration waxtaanee ñi nga xamante ni tey peut-être dafa jotoon pour ñu ñibbisi waxtaanee ñi nga xamante ne jot nañ leen a delloo si tey dañ leen indil exemple yoo xamante ne ñaar la ñu ko góor ak ku jigéen muy Babacar ak euh, maam jaara kenn ki di yëngu ci wàllum finance keneen ki ci restauration ñu wax ñu tuuti ci seen jaar-jaar ak complication yi ñu jot a am donc Pape Samba boo paree nga lancel ma sama élément ñu ñëwaat léegi Euh, alors, le, le, le yassa. Le yassa. Mhm. Mhm. Les boissons au biaps, au, au bicep. Mhm. Euh, je pense que ça doit être à peu près tout. Hein. Et quelques sucreries, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. naar yi ñoom dañu dañu bëgg lekk Sénégal ñi ko xamul euh, peut-être mais une fois ñu découvrir ko dañuy dellusiwaat te la plupart du temps bu ñuy ñëwaat dañuy indilaat yeneen clientes ñoom bëgg nañ suñu lekk torop fan la idée bi euh, ñëwee ubbi restaurant Sénégal fii ci Marseille en fait idée bi sama borom kër moom moo ko amoon boobu dama demoon vacances euh, Sénégal xale yi fekk euh, benn restaurant mu ngi fi woon boobu nag nekk ñoon ci place bi ñu woon beneen place bu gënoon a ndaw bi léegi daam bi ko yoroon nag ne dafay quitter day dem Paris léegi moom it ma ñëw mu wax ma ko ne ma ndaw si yoroon restaurant bi dafa bëgg a dem te bu tëjee beneen restaurant du fi am te puisque yow yaa ngi toog defoo dara te yàlla may na la si togg tax <laughs> macha allah chaque fois ma toggoon kër ga nit ñi dañ daan ñëw naa ma yow danga war a tijji restaurant profité ci nit ñi nit ñi lekk comme ko defoo dara mu wax ma ko man it ma ne ko pourquoi pas on y va léegi ñu commencé euh, place bu ndaw la woon léegi yàlla dimbali ñu ñu ñëwaat am fii ñëwee. ma parce que sincèrement am loo xam ne mën nga ci préserver sa dignité dimbali ci say wàkk parce que si loolu dafa nekk charge xam nga damay faral naan bépp doomu Sénégal bu nekk diaspora bi dañ ko war a sargal parce que naam wax nañ ko léegi dañuy wàññi ndóol ci Sénégal xaalis bi ñuy yónnee bu fi nekk loon on finance plus la consommation des ménages que l'État teg ci xaalis bi ñuy dugal c'est des ressources beaucoup plus stables que les investissements des étrangers moo tax nag war lañ aussi am ñu leen delloo maintenant jafe dëkk bi tar na crise bi xam nañ ko depuis 2008 crise bi dafa tar man sama wàllu liggéey ne ay sénégalais dañu jógee Espagne wala Italie parce que foofu depuis crise bi secteur construction bi dafa am ay jafe-jafe ba ñun ñëpp dañuy daw ñëw dugg biir France wala dem ci. yaa mënul compter ci kaw yow tonton Macky Didi loolu moo nekkoon exemple de réussite yi nga xamante ne moom la wane à parce que euh, tout à l'heure ñi ngi ci ginnaaw que souvent nit yi bu ñu demee voyager benn dëkk dañuy ragal moyen wala ils ont pas le droit wala je sais pas am na dara daal lu leen di bloqué loo xamante ne day tax yenn liggéeyu ndaw yi rek la tàmm di def. dëgg la bijou dañuy foog ne peut bu ñu demee extérieur bu ñu engagé wu ci comme kii peut dugg si wàllum finance wala ki nga xam dafa ubbi restaurant boppam bëgguñu engagé wu parce que souvent moyens yi dafay difficile wala peut-être këyit du dajaloo donc euh, raison yi tax souvent nit waxoon sànq peut-être seen amuñu réussite bi ñu bëggoon dañu dellu si ñenn ñi peut-être parce que gëmuñu seen bopp mais ku ci mel ni Mame Diarra ak ku ci mel ni Babacar am ñu fit fit parce que fit mooy ubbi entreprise fit mooy tax nga dugg ci yenn liggéey yu mag yi nii ak euh, peut-être euh, nu ñu koy waxatee gëm sa bopp. Mm-hmm. mooy tax nga dugg nga dugg parfois day métti nag. parfois day métti ci dëkk jàmbur ñu lay nga war ko am pour mën a tijji benn euh, restaurant wala yeneen entreprise wala nga ne man damay dem déposer sama CV nekk ci finance ni que ñoom dañu am benn politique euh, a jox. waaw mm. nit ki dafay metti pour nga ubbil sa bopp dara c'est mm. toujours difficile mm. soit kayit yi wala yenn saa yi di gis ñoo xamante dañuy dem jàngi fenn ñëw am ñoo xam ne fii la ñu dañuy priorité ñi nga xamante ne fii la parce que peut-être ñoo gën a ni ñu koy waxee ñuy gën a sentir ñu bokk ci société bi déjà que ñeneen ni souvent ñu jógee feneen mi ngi noonu ku nekk da def politique pour liggéeyloo ki nga sa sa sa sa mbokk ba bare mm-hmm. donc euh, voilà li ñuy wax mooy dañu euh, am fit mm-hmm. nañ ko nañ ko ñemee bu ñu dem dëkku jàng yes weekend nekk dëkku jàmbur taxu la peut-être yaafus mm-hmm. taxu la waral tax nga ragal warul tax dara li nga osé def sa dëkk mën nga ko def dëkku jàmbur bu dee ci lu baax la lu positif la te li lay indil li nga fàttali juste que ñoom ak ñeneen ñi nga xam ne am nañu réussite ñi dëkk extérieur que bu ñu fàtte tamit ñibbi si seen dëkk plus tard investir fi ci nu mu gën a teelee balaa muy saturé surtout que ñi dem bëri na te ñi ñibbi si instant bi tamit voilà bëri na on a tendance à dire que chaque fois dañuy bon on a tendance à montrer que nekk toujours dañuy nekk toujours dans des situations déplorables wala li tatati tatata mais bari ci ay sénégalais yi nga xamante tamit bu ñu nekkee ci yenn dëkk ñu ngi yom yenn yenn yi mm-hmm. yaa institution yoo xamante ni ñi ngi am ñi ngi ci yenn institution yu mag yoo xamante ni vraiment nekkul euh, lu rek chaque jour image bi ñuy wane que ni sénégalais bu nekk fii toujours liggéey yu ndaw yi la ñuy def y a des diplômés yi dindi parce que génération bi léegi du ñoom ñooy dem di nekk ay serveur di bale ay mbedd wala di dem def yoo xamante liggéey yoo xamante ni auparavant moom rek moo doon am Europe mhm. léegi nit ñi yeewu nañu yeewu boo xamante internet bi dimbale nañu ci gëstu yoo xamante ni même boo deful formation bi mën nga nekk benn autodidacte boo xam ne yaa koy jàngal sa bopp soo ni auparavant moom sa bopp wax na ko léegi xamuñu ko woon euh, xamuñu ko woon mais ah tey booy nit ki day jàng yenn saa nga gis koo xamante dafa def formation bi li muy liggéey ak li mu jàng bokkul tey boo demee États-Unis di gis ku mel ni euh, Nabou Nabou David moom keroog moom laa interviewé woon bu ngeen fàttali ko moom dafa ubbi kiiwu boppam atelier boppam di ñaw di def ay design ak Versailles aussi on en avait parlé ici Moussa ah. Versailles aussi tamit boo leen xoolee exemple lañ yoo ci am événement bu mag pour yow boo demul seeti ko li nga sañ sa baaxul mi ngi noonu donc ñu mel noonu c'est des gens à féliciter à encourager tamit ak ñoom ñi nekk Paris ñoo euh, nekk Marseille muy Babacar ak Mame Diarra ngi remercier bu baax nag Dieynaba Seydou Ba bi ma demaloon ci reportage bi encore une fois je lui fais un gros coucou merci beaucoup Dieynaba. bisous à toi Dieynaba namm nañ la bu baax gaawal nga ñibbisi donc merci à toi et puis bon courage à sénégalais yi nga xamante nekkuñu seen dëkk yëpp di évoluer feneen c'est pas évident mais euh, gëm leen ko rek boo leen ko gëmee lépp loo leen dugg